mbokk internet yu IYAT TV dal leen ak jàmm Pape Alé Niang nag jot naa àddooti ci mbirum prisonnier yi nga xam ne rek jamono bi ñu toll ni ñu ngi leen rënk ci kaso bi te mën nañ ne nag ñu si bari si ñoom defuñu waxuñu lu tax ñu daal leen di nëbb li di jant bi tax nag mu yëkkati ay kàddu yi njéggalu ak ay kàddu yi ñaan yoo xam ne rek mi ngi ko jëmale eh, ci képp ku nga xam ne rek mën nañ ne sa loxo daal dinay jot ca kaw yoon nekkat ñi nga xam ne rek mën nañ dañoo bari te ñu tee te nag ñu bokkoon ci ñi nga xam ne rek nekk ay manifestant la mën a tuddee ak ñi nga xam ne rek dañ leen a jàpp ci li nga xam ne moom mooy erreur depuis boobu ba tey ñu nekk ci kaso bi moom mii di Pape Alé Niang di xam ne que ne kat gannaaw bi ñu bëgg a tabaski ñaanoon nañu ko te tamit gisuñu benn résultat boo xam ne rek juddoo na si bi la yoon nag ñu dellu di ko ñaanaat ndaxte kat seddu nañ kaso yi xataay ba nga xam ne rek daal dina fay am tax jamono bi ñu toll nii ñu dal di am xolub ñeewant ci doomi jàmbur ya nga xam ne rek ñoo fa daal di tëdd te ñu si bari nekk ñoo xam ne rek mën nañ ne la ñu def gravité ba ndemewul noonu ba tax ñu di leen di nëbb lii di jant bi moom mii di Pape Alé Niang nag gannaaw kàddu ya nga xam ne rek daal dina koy yëkkati ma ngay jottali nekkat président de la république gannaaw nag ba ñu ko santé ci décision bi nga xam ne rek jël na ko te muy bañ a bokk ci élection yi lii kese nag bokk na ci li nga xam ne rek mën nañu demande la boo xam ne rek dafa jëm si ci moom te muy nag na daal di bàyyi définitivement prisonniers yi nga xam ne rek jamono bi ñu toll ni ñu ci biir kaso leen wax ngeen di wéy di abonné